waaw man maa ngi tudd Moussa maa nekk le chargé de la de communication du du des enseignants du Diender waaw. waaw jafe-jafey Diender moom comme Sénégal gépp la ci njàng mi jafe-jafe yi ci njàng mi moom comme Sénégal gépp la parce que foo dugg ci Sénégal xam nañ jafe-jafe yi moom jàng li ci li ci njëkk moy perturbation scolaire yi. donc am na Diender mais nag ñun fi ñu mën a gën a œuvrer mooy problème stru euh, d'infrastructure yi mooy maanaam li jumtukaay yi jumtukaay yi nga xam moom lañ soxla loolu ci lañ ko en tant que ci lañ mën a sóobu ci lu mel noonu moo tax ñu dem di demander à ce que euh, Bayax mu am deuxième école élémentaire pour waaw ñaa parce que Bayax benn école élémentaire rek moo fa am ñu bëgg fa beneen parce que ba fa nekk nii élèves yi à 4 à 5 la ñuy toog donc ñooñu pour ñu bàyyi leen ñuy jàngee noonu. du ñu yomb ci ñoom te aussi mën na impacter seen résultat moo tax ñu jóg mëne combat boobu te incha allah euh, balaa ouverture prochaine incha allah yaakaar naa dinañ ci am satisfaction lycée bi euh, alhamdulilah d' abord pour seen résultat yi BFEM ak BAC seen résultat yi alhamdulilah au niveau national si bu ñu xoolee seen pourcentage ak yi ñu am fii baax na te moo gën sax seen résultat yi daaw mais ñoom aussi am nañ problème mu euh, espace bon pas espace mais problème de classe am nañ problème aussi de kii jumtukaay maanaam. Euh, lu mel ni bibliothèque lu mel ni salle d'informatique am nañ bu fa nekk ñoom mais suñ ko mën a gënee mën a mën a dooleel moo dina ci baax voilà benn lycée boobu moo polarisé vingt neuf pratiquement vingt neuf village vingt neuf villages di dem ci benn lycée kese kese lycée boobu war nañu fexe am beneen mbaa même bu ñu amul beneen ñu fexe yokk capacité am donc loolu aussi ñu ngi ci interpeller autorités yi autorités euh, étatiques yi yëpp euh, surtout les autorités scolaires ñu ngi leen ci interpeller waaw kuréel bi nag comme niñ ko xamee comme moo dafa ëmb képp kuy jàngalekat ci Jandeer te dama ciy profité di wax ni du jàngalekat français yi rek maanaam kuy jàngale français arabe alxuraan ci daara yi ñëpp ci lañ bokk oustaz yeeg ñëpp ñu ngi ci biir même cas des tout petits ñëpp petite catégorie ñëpp ñu ngi biir léegi ñun suñu euh, suñu objectif mooy fexe ba njaa njàng mi gën a avancé ci Jandeer en quoi faisant maanaam pour dem gis problème yi xam ne li ak lii mooy problème ñu dajale problème yooyu yëpp toog xalaat nan lañ koy apporter solution ñu dem ci autorité yi mën naa ci joxe benn exemple comme école bi ma doon wax sànq bëgguma tudd tur tur village bi pour des euh, des raisons diverses mais école boobu deux ans ou trois ans de suite duñ def résultat parce que amoon nañ problème entre ñoom ak population bi mais bii rat yéegee loolu ñu dem wax ci dox ci alhamdulilah fi may wax ak yéen nii résultat ren yi euh, euh, ñoom def nañ résultat gollam politique bokkuñu fi ñu féete mhm. waaw ñooñu bu ñu amee chance dajale leen tey muy autorité yi ngeen di wax noonu c'est parce que auto euh, structure bi muy RED euh, c'est apolitique maanaam du def du def politique. loolu moo tax ñu mën a am chance dajale ku nekk APR ku nekk PDS ku nekk AFP et cetera ñëw parce que ñoom ñëpp ay doomu jandeer lañ jandeer mënul développer ci division mënul nekk. donc ñun loolu lañ xam ñu ni comme ñun politique uñu faraluñu kenn ci politique ñun ki ñu faral mooy jandeer nañu dem ci ñoom comme ay doomi jandeer la ñuy wuyoo bu dee ñor na leen bu ñu leen waxee dinañ ñëw te heureusement ba leen waxee kenn desul gis ngeen Saliou li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu gën a suqali ñu gën a taxaw ci suqali njàngum jandeer suqali njàngum jandeer nag du red aye nga jox euh, red war a def cérémonie nga jox ko 200000 ou 300000 wala kii du loolu rek mooy suqali njàngum jandeer njàngum jandeer mooy ñun ñu ngi def li ñu man mooy dem jëli problème indi teg ko ci table ji parce que école primaire yu ci bëri amuñu ay ay ay ay ay yu ci bëri seen classe doyul wala euh, classe yi ñu yor dafa donc ñoom bu ñu bëggee participer ci développement wu kii jandeer jàngum jandeer dañuy dimbali pour ñu résoudre problème yooyu double léegi mënul ñàkk ba léegi te te je crois que fi mu amul ci Sénégal bariwul ah fi mu amul ci Sénégal bariwul. Euh, si si si am na fi abri provisoire am na fi <laughs> bariwul na quand même ni ko ni ko le sud di jooy ak yooyu am na fi bien sûr aéroport bi ñëw na te ñu ngi wax gaz a pétrole mais loolu lépp mën naa ne euh, su ret taxawee tey parce que ret lañ ko taxawal buñ ko taxawalee c'est parce que mooy li nga cité noonu koom-koom bi yëpp ngi fi te mënul dem ah non non non non non xale yi nag euh, bëgg nañ jàng quand même bëgg <laughs> waaw quand même c'est que xale yi bëgg nañ jàng dinañ dem ci tool yi quand même mais en fait su école tijjee ñoom ñëpp xam nañ leen di xaar parce que parents yi aussi ñu ngi ci jouer rôle bu am importance voilà ok merci beaucoup. jërëjëf euh, tur bi Thierno Moussa Sow la nekk responsable APR si Bayax. jàngalekat yi euh, bokk si ñi nga xam ne tànn nañ leen comme parrain. bëccëg na dañuy sargal yi gën a ràññeeku. Uh-huh. sa diggante ak xam na ne du la lan la lay def ak lan moo war jërëjëf mooy rafetlu liñ def parce que xam nga développement dafa am yoon yoon bi mooy xam-xam te ñu fekkente ne ñoom ñooy borom xam-xam yi di jàngale ñu dem ba yàgg jaaroon si école bi gis seen rakk yi ñu ne nañu xëy tey ji sargal meilleur élèves yi. ñu invité ñu ci ñun ñuy ñoo xamante ni ay acteurs développement lañ am lu ñu def ci wàllu éducation dañ ciy kontaan trop wax leen ne tamit looy commencé rek jéemal góor góorgóorlu parce que gis nañ ne xale yi fi ñu teg seen tànk foofu la man loolu laa gis. gis nañ ngi def ay jéego di tabax ay salle de classe. mais uh-huh. loolu doyul. Uh-huh. Euh, lépp da naan état moo ko war a def mais état aussi ñëpp la. Uh-huh. Euh, tey jafe-jafe yi dëgg-dëgg. Euh, lan jéego la si Thierno Moussa Sow fas yéene def d'autant que léegi yaa ngi APR leer na ak looy xaar. si jëwriñ bi yor njàng mi wala waa xam nga ñoom dañoo am gan man biir APR xam nañ ne man lépp lu dul développement du nga ci dox porteur de voix la. Jandeer dama leen fekk ci situation boo xamante ne da ngay gis classe boo xam ne dañuy taxaw xaar ba seen moroom yi génn ñu jàng yàlla dimbali ñu am luñ ci def dañuy ñaan ministre bi rek mu dégluñu population Jandeer moo ñu yónni ci moom am nañu problème yi classe waaye problème bi ñu gën a am nag fii lañ ko amee mooy inspecteur bi nangu nañoo tabaxal ay école waaye def ne mënu ko tabax tànk joxuñu ko suuf suuf soosu enseignants yi organisé tey ñi ngi koy laaj monsieur le maire li mu mot un an yaakaar naa ne xanaa bu jotee ci jógee ci programme bi dina ko joxe bu ko joxee rek ñu tabax ko benn problème la ñu am mooy suuf bu ñu tabaxee ay école am nañu ay partenaires état bi nangu nu ko tabax mais monsieur le maire moo leen mën a jox suuf joxagu leen suuf loolu mooy sunu problème fii ci Diender il faut ñu wax ko. wala toujours ci logique euh, développement boobu. Euh, euh, wax nga ko tund bi macha allah bare na ay koom ak yëpp. comme ni mais tey jii est-ce que jaar ngeen fa ngeen war a jaar ak requête bi yóbbu ko si conseil municipal xanaa li war a amal njëriñ gox bi quand maire xanaa waru ko bañ. man conseil municipal la dama demoon ak liste am cinq conseils xam nga wax na enseignants yi ne leen dinaa leen jox benn site les mot six mois foog naa ne ak programme tey jii mi ngi doon xaar mu ñëw toog. bu toogee ñu fàttali ko ko sunu xarit la sunu frère la mais wallu nag intérêt dëkk bi amul xarit ak frère dañ la koy wax dëkk bi ñu dañu dañ ñun école primaire yi ñu am doyut léegi am nañ lu ko mën a tabax terrain lañ soxla dëkk bum ñu ko jox ñu tabax ko xam nga loolu rek nga mën a def mooy monsieur le maire ñi ko wër ay enseignants lañ fii la ñu nekk ci classe yi di jàngale. wax nañu leen ko ci fësko bi dellu waxaat leen ko bind nañu yónnee ko dinañu toog waxaat ko ko li ñu mën a wax mooy di ko ko fàttali rek di ko ko fàttali parce que am maire mënoo ko forcer di nga mën rek mooy wax ko mais dañ ko xam ne population moo ko laaj du ñun. population ñoo ko demoon ngeen aussi askan bi wóoruwaat ko tey mel na ne. Uh-huh. mi ngi yomb si yéen lëkkaloo ngeen ci tuyoo ak ministre conseil Ibrahima uh-huh. ne tey jii euh, jandeer bu ñu ànd ak yéen wala bu ñu ànd ak yéen jàpp ngeen ne président de la république fi mën a am ndam na fi ndam ba pare am na fi ndam xam nga lan ma jafe ñun ñu bëgg def dara mais ñun man dama koy dama koy mos di wax kenn mënu ma fi ma dëkk man sama carte maa ko téye. saa yu mën neex noonu la politi euh, politique Diender di demee ki ma àndal yow yaay dem su ma la bëggee tëq rek ki ëppoon doole mooy dem parce que loolu mooy réalisme ñun dañ fi nekk pour intérêt population bi mais tey li ñu soxla dëgg-dëgg mooy ku dimbali sunu étudiants yi ku dimbali sunu xale yi nekk fii ñu jóge ci situation bu ñu nekk njàng mi fii dañoo am problème xale yi am nañu problème logement fële université dañ koy wax état bi ku jóge ci àll bi dem université bu amul fu mu loosee du jàng bu jàngul day ñibbisi te loolu musiba la toog ay ñaar fukki at ngay jàng jékki-jékki am problème cartouche ak situation ni mu demee nga ñëw toog dañuy la ñaan état bi mu jàppale ñu mais dañuy ñaan tamit fii monsieur le maire ñu jox suuf soo xam ne dañ ci mën a indi ay partenaires ñu tabax xale yi jàng école yi ni mu saturé baaxul sax ci wàllu wér-gu-yaram xale bu xaw a am problème asthme sax doo jàng bu xatee da ngay fat ak tàngoor bi ni mu demee nii loolu nag dañ koy wax waxaat ko jaar ko fi ñu ko war a jaar képp ku ko mun war a dégg di nga ko dégg boo tànkam loo sax man damay fëgg wax la ko ak boo mun doon. seen mébét a ngi siy liggéey. waaw xam nga amuñu APR amul adversaire politique. Ah, non <laughs> boobu dama nekkoon fële nekkumoon fële nekkuma fa mais dama du fii Sénégal sax dañu amul adversaire politique xam nga lan koy xamee président de la république war nga ko sant war naa ko sant bi mu fi toogee nga gëj dégg bal bu tàkk Casamance. te déggoo benn réew boo xam ne dafa dem taxaw fekk président bi di ko bootu ci gannaawam naan ko dimbali ma daf fermer porte yëpp ba régler situation biir réewam bon kenn du fex wàllu sécurité bon boo gisee sax politiciens yi jaaxle moo tax ñuy dem di attaquer Aline Sall alin Sall du ministre du député bu ngeen amee lu ngeen dox ci pétrole tim am nay patron am nay yoon jàng ngeen bu leen ko wutee député du ngeen dem fenn <laughs> loolu amul signé dossier boo xam ne sénégalais yëpp dañ ci war a am ay xibaar yu leer y ñi koy tudd ñoom dañ ko war a porter plainte ñu bàyyi ñëw ci man nga ñu wax wala ñëw ci yow bu fekkee dañu ñeme li ñuy def nee nañu dafa luubal nañ ko porter plainte mais man mooy benn njàng mu dox ñu financement yi ñuy joxe ñu jox ko sunu jigéen ñu liggéey ñaareel bi mooy ñu dimbali ñu dëkk bu toll nii amul terrain bu baax amul foyer de jeunes amul fenn fu ñu mën a daje amul benn sécurité Diender presque tey boo dee xool gendarmerie bi fi nekk moo nga Kayar ci commune boo xam dafa may banque am yëpp loolu defe naa ne loolu la population bi di xaar ma àggale ko njiitu réew mi te dina ko ko àggale te gëm naa ne dina ko def. ndax soxla nga soxla soxla nga dem a mën a yor kàddu Diender. xam nga kooku mënaguñ ci wax. Ah, non pour man jotagul. bon jotagul pour ñu wax ci. am na yeneen lu Thierno Moussa gën a bëgg excès guñ ci parce que ñun dañu am bopp bu dul dem assemblée nationale fayu weer am xam-xam boo xamante ne bu ñu appuyé ñu ut ay emploi lu bëri am nañu xel d'abord nit bul xool salaire rek man salaire mënu ma yor lii mën a yor gars yi mënu ma yor de sama ndekki xëjul ci weer boobu foofu assemblée national bon foofu du sama vision sama vision mooy développer Diender loolu laay dox doxuma poste wala leneen nañ ma déglu te lu ñu leen bindal ñu teg ko mu jëm ci askan bi ñu def ko su ko defee rek lépp mot na. léegi léegi da ay gaañ lañ. non Youssou Ndour amuñu benn problème bés Youssou Ndour amuñu benn problème problème politique la woon jeex na ah, non mën naa ne maa ngi maa ñu ngi déggante ñi ngi diggee li ñi ngi si jàmm amuñu benn problème loolu na sa xel daal. <laughs> Euh, li ma mën a wax mooy que ni même bu dul lycée Bayax kese lycée yu bëri dañoo am problème lycée de Bayax problème bi ñu am mooy suñu salle de classe yi bëriwul. gaa professeur yi ak proviseur bi ñëpp ñu ngi ciy jàpp suñu mag yi ak ñëpp mais am nañ problème salle de classe am nañ problème bibliothèque am nañ problème salle informatique te bu ñu sañoon tamit état bi ñu jàppalee ñu parce que suñu proviseur mu ngi def lépp lu mu mën professeur yi ñu ngi def lépp lu mu mën gaa ñu ngi ciy am tamit ay résultats yoo xam ne yu baax la même bu dee sax du baax baax yu ëpp yooyu mais am nañ ci résultat yu baax man mi am naa ci sama baccalauréat te ci condition yooyu noonu lañ doon jàngee suñuy mag ci lañ jàngee am nañ mention bien assez bien yëpp am na fa est euh, très bien bi daaw la très bien bi ñu amoon daaw la te vraiment moom tamit ñu ngi ñaan état bi mu jàppale ko parce que tamit fi mu nekk xaw na sori en plus de cela buñ sañoon tamit ñu ñi fi nekk ñu jàppale ñu en tout cas loolu lañ mën a wax état bi euh, sama ambition mooy ma nekk journaliste parce que bëggoon naa def droit mais dama xool ba xool xam ni université boo fa naree def droit tamit dina métti torop parce que condition yi am université tamit métti na métti na te loolu ñun ñi daf ñuy dawloo ñun dañuy naan bëggu ñoo dem université parce que li fa nekk dafa métti te bu ñu sañoon tamit état bi mu jàpp ci problème CM lycée université lépp a métti Dakar ENSUP ENSUP laa bëgg suivre tamit euh, communication journalisme Ok. Euh, je suis née en 1996. Hmm. Okay, suñu taxawaay association bi mooy nekkinuwaay waay étudiants yi <coughs> étudiants yu baax ak élèves bu baax ci fi nga xamante ne mooy Sénégal ci bépp école wala ci bépp université donc à chaque année ñuy ñuy ñuy defal étudiants yi euh, ak élèves yi nu euh, euh, élèves yi ñu leen di defal ay cours de vacances di leen jàppale bu école tijjee tamit. Euh, ñu leen di may ay fourniture lu ci mel ne loolu noonu dañ dañ koy faral di def di ko defal élèves yi léegi ci kii ci ci étudiants yi nag maanaam tamit bu étudiant bi amee bac comme ça nii moom xamagul lan mooy université dinañ ko woo jàppale ko ci li nga xamante ne mooy inscription inscription en ligne waaw te tamit ñu explique ko lan mooy xew lan mooy xew ci université yi. ci lépp waaw suñu suñu jafe-jafe suñu jafe-jafe ci ndakaaru mooy. la question ci logement logement mooy ci côté social bi parce que am na ci ñoo xamante ne déjà bu élève bi amee bag rek say waajur dañuy yaakaar ne yow xam nga déjà c'est la réussite alors que yow yaa ngi door a commencer jàng yaa ngi dem Dakar xam nga amuloo bourse amoo ku la jàppale ci yenn kii parent yaakaar ne yow yaa ngi loolu noonu fekk demee noonu léegi ci loolu noonu nag mooy suñu problème boo ñëwee amuloo foo nekk tamit nga nekk université logé biir université nga war a jógee par exemple université nekk fi euh, nekk euh, fan yow nga war a jóge lu mel ne ay Kër mbaay Fall jóge di jàngi transport boobu noonu ak lii bi yooyu noonu yëpp ay jafe-jafe la yoo xamante ne étudiant yi dinañ ko rencontrer léegi nag bu fekkente ne étudiant bi am na possible am na possibilité am benn logement boo xamante ne jege na université fu ci mel na Médina loolu noonu da ciy baax wala tamit mu loger université ñu jàppale nga loger loolu noonu da lay yombal franchement